ma ne Jamil Seydi Asmaal di say maamu Jamil Cheikh Seydi Aboubacar baayu Jamil Serigne Mansour si rakku Jamil Cheikh Ahmed Tidiane si di rakku Jamil Abdoul Aziz Junior rakku Jamil Papa Malick si di rakku Jamil Maam Gorgui taalibe Jamil ah, xam nga Seydi Jamil Seydi Jamil maa lu moo rafet jikko maa xam Seydi Jamil maa gëm Seydi Jamil te naw Seydi Jamil am Jamil raw àdduna ak alaaxira loolu am naa ko moom moom foofu laa tëj Jamil moom foofu mu jógal ko sa digganteeg euh, Boy Séeréer Ndiaye tamit xam nga man ñaareem laa dëkk sa diggante ak booy séeréer Ndiaye it bëgg naa nga ñu ci tuuti ay leeral. yow njaaram nga dëkk. njaaram laa dëkk waaw. booy séeréer comme Diop ak Ndiaye rek dañu si làmb baax moom lu bëri ma daan ko. mu nekk nag koo xam ne nag dañu suusoon maag moom rek nii maag moom fi ñu ngay waxee ne ak man semaine bii ñu génn rek la ma woo du toog weer wu boobu xam nga moom am na benn rajo bu fa nekk bu nekk. ñaareel. Hmm? booy séeréer sa ñaareel. mooy bëre moom keroog mm-hmm. ko dóor mm-hmm. làmb dañu gis nga ñun suñu jamono. Mm-hmm. ki sa bëre gën a métteeg moom koo koy nekk sa xarit. Mm. làmb day dajale day boole. loolu dafa am loo seetluwul. sport la. ku nekk sportif sportif nga kon ku nekk sa mbokk la. sportif sportif la mbokkam la ñëpp sport ñëpp mbokk la am na ñu ko gisee la sport ñëpp mbokk lañu sportif sportif sa mbokk la làmb ñëpp mbokk lañu booy seet mi wax nii toog mu weer wu yoxul maag moom téléphone noonu laa mel ak moom njaareem googu ah njaareem toj naa ko <laughs> tasara kan ak kan nga fa bëreel. ah romb naa yooyu léegi dootuma nettali fat bi dem dafa am foo xam ne hmm? da nga koy waaw. da nga koy romb Farba kaay. Hmm, hmm, papa waaw ñu ngi koy nuyu bu baax a baax. Farba ñu ñu koy Farba Ndiémé. sama doom bu mag bi. moom moom moom lañ ko tuddee Farba. Farba nag. lan moo waral jour mooy lan mm-hmm. mooy boo waaye ku tudd Farba mm-hmm. loo neex def loo neex wax fu neex dem mm-hmm. luñ la bëgg a def dañ koy Farba dootuñu ko def <laughs> papa yaa dégg wolof macha allah nga ne ma paa bi loo wax lu nu waxoon ci loo ma doon wax ci paa bi léegi mais paa bi dañ de ne paa bi nga wax tooñal ku ne mais paa bi tooñal ku ne mais bii la wax bii bu ko tooñ loolu waral bii tooñe paa bii lañ wax na nga tooñ ko dama toog fii benn bés ay xale di werante di werante paa yi dañuy dépassé paa yi dañuy dépassé waaye paa yi dañuy dépassé man leen kaay leen ñu ñëw man leen kan paa yi dañuy dépassé ko wax ne ah, neexul ba neexul day maa ko wax ma ne ko seet loolu li nga wax boole français ak olof ma ne ko paa yi dañ leen dépassé paa paa mooy lan si tubaab paa bu ko indee si olof mooy lan mooy jéego ma ne ko paa yi paa yi ñu def defagu leen ko te du ngeen ko def mu ma ne ko paa yi paa yi yi def ma ne ko def ma ne ko paa yi da nga da nga boo da nga juum adduna da nga ngay mën affaire danga nga waroon yi dañ ñu dépassé nga ne paa yi dañuy dépassé da nga jum du noonu. seetlu la li nga wax da nga ne paa yi dañ paa dañ di dépassé nga wax te nga naan ko paa yi dañuy dépassé. ma ne ko paa yi wax nga dëgg paa yi nañ leen. paa yi paa yi daf doon ko def mukk si àdduna te paa yi fii jaar du ngeen fa jaar. mu ne ma nag ñun dañuy leen li ñuy jaaxal dañ leen amul dañu amul ku mel ne doo xam ma la ñu amul. amul ku mel ne doo xam ñuum tey ma ne ko loolu. ma ne ko nag mais boo juumee nag da nga siy defaru nag boo siy defaru. macha allah muy ja muy wax la ak jëf. Mm-hmm. waaw. dañu ne boo juumee. ki la ne diw dafa juum. dafa ne nit la. Mm-hmm. diw boo ne dafa juum. da nga dëggal nit ndax nit ay juum. Mm-hmm. ñaar lañ ci dañ ne ku dul juum doo nit. xam nga lu ci teg. ku dëkkee juum it doo nit. waaw que boo juumee li la juum la da war a roose juum. am na leçon boo si war a jël pour ëllëgee erreur boobu dootoo dal mais saa boo nee diw dafa juum dëgg-dëggal na nit la ñu tey juum waaye nag bu boo juumee nag da nga siy dafa am loo siy jëlee nag pour ëllëg adduna noonu la. macha allah jërëjëf papa muy jàngale bu am solo ba nga xamante ne bii suñu suñu génération bi war nañ cee war nañ cee jàngee lu bare bari wante dañuy dañuy dañuy ñëwaat ba léegi ci làmb rek euh, xam naa. xaw ma di nga ma ko nangul xaw ma ko doo ko nangul mais bëggoon naa xam sa combat yi nga gën a métti sama ko sama combat xeex mën a bëri mhm. li ma mënoon sama bëri mu Robert kooku sama combat moom a gën a métti fu ngeen ko bëree woon ñu ko bëree boo si cinéma moom. booba temps foofu teere loon de amagul làmb HLM foofu lañ egsi woon. booba temps foofu àll loon boo xam ne dara amul. fii bi ñuy wër bas bi jàmm nañu ko foofu la tëggee làmb ja. moom laa wax sax foofu laa ko bëree ak Robert. donc ngeen ko bëree. waaw combat bi nu mu mujjee woon. moom mu hmm, mujjee daan. mu mujjee daan waaw. xanaa loolu moo taxoon mu métti ci yow. waaw moo taxoon mu métti lool bëri méttee métti. bu ko defee boobu ba léegi. léeg-léeg mu ñëw du ñëw Dakar mu te ñëw xam nga mu faju leen saa bu ñëwee Dakar dina ñëw ba fii nuyu ma dem sa combat moom mooy sa xarit la sport booy la sport bu ne sa sa mbokk la gaa yi dañu gisewul noonu waaye noonu la mm-hmm. ñu dox naa sànq ne sama ku nit ku ne sa bëri ku mu bëgg a mettre moom koo koy ne sa waay parce que nit ku ne lu waay lu waay mënul neexul loo lekk noonu ko mën dañ ne loolu lekkee mën ko xamal ni ko defee xam suukar mën la àdduna ñetti mbër ngay bëre mbër mu nekk ñetti mbër ngay bëre dafa am koo xam ne danga koy moytu ba mu juum nga daan mm-hmm. danga koy moytu ba koo xam ne fa mu ne nga koy fekk daan ko danga am koo xam ne danga koy nax ba mu def erreur nga daan ko dem ñibbi ñetti mbër ñooñu ngay bëre moo tax ki ngay bëre ko yàlla na nga xam yëpp ñëpp yemuñu bër bu nekk na nga war moom. ñett yooyu ban moo ci gën a naqaree bëre. kii nga xam ne dafa mën a bëre mën a xeex foo gën a naqaree bëre foo jaar di nga gën a naqaree bëre mën a xeex mën a bëre kooku gën a jërëjëf papa yaakaar na euh, leeral bi am na solo euh, léegi dama bëggoon rek ñu ñëw ci li nga xamante ne bii mooy làmbu démb ak làmbu tey euh, lan nga gis ne moom mooy lan moo leen wutale lamb démb ak lamb tey leen la wutale xoolal photo bi si kaw xool ma ñaari téere laa fi takk ñaari téere nga takk de xoolal mbëri ñaari lañu téere lañu takk léegi ay téeméeri téere xool ko xoolal mbëri ay ñaari téere lañu takk ak sëriñ am na du mën a ñàkk waaye lii daan mbër mi yaa koy def sëriñ bi du ko def de lii daan mbër mi sëriñ yaa koy def sëriñ bi du ko def sëriñ bi daf lay jox li nga lu tax sëriñ li nga gàll mais xal xamoon si sëriñ may fexe ba bu la gàll la jàpp rek li nga war a def ba demee def ko ñun man laa xamoon bu ma gàll la jàpp rek loolu def naa maa loolu li sottil bëri bi man la ak loo bëggati ak euh, gis nañ ne euh, euh, làmb wax nga ko sànq gàllaaj ci la bokk yéen seeni jamono wala yow ban position nga teg gàllaaj <laughs> ban position nga teg gàllaaj maa ngi ñëw gàllaaj dégg nga li ma la fexeel bu gàllaaj li bu bëgg a def rek def bu la gàllaaj jàpp mm. ba loo bëgg say yaram yëpp nangu mm. li ma la bëgg a laaj mooy fi toll nii li ma la bëgg a laaj mooy euh, xam na na làmb dafa laaj doole laaj fit laaj mën a bëre ah, laaj mën a xeex laaj së laaj gàllaaj euh, gàllaaj ban sol a nekk ci yooyu yëpp ma lim gàllaaj mm. mu ngi fépp gàllaaj fépp la nekk mm-hmm. ku nekk ni nga gisee la ak ku ne li lay tax jóg mais garaaj fépp la ne mbër yi boo xoolee ñaari mbër yu bëri ku nekk ñaari garaaj ngay takka kon kay doo war a def naa am na wala amul ñaata butéeli saafara gis mbër du ko tuddoo léegi si lamb bi mais nga yaakaar ne xale yi léegi fi ñu teg gàllaaj ëppul ëpp na lool lool lool lool lool lool fi ñu teg gàllaaj dafa ëpp galaaj ñun duñ sa xamal ne fexeel ba yow li bu bu ko tëra tëy loolu bëgg a def ko loolu mooy taxoon ut ko galaaj loolu la woon ak lan. fexeel daal mu jàpp ci sëriñ rek bu la jàpp. Mm. bëggoon naa tamit nga leeralal ma sa diggante ak ki nga xamante ne bii mooy Modou Lo. Modou Lo si buntu kër gi fii laay toog toujours benn àllarba ma jékki-jékki benn oto ñëw gaare wàcce ñu dëkk Modou Lo. lu fukk baal ma jox la ko dama lay eh, eh, tey itam sama dama lay dama lay sant si la. Fass yëpp benn. Modou Lo Modou Lo Modou Lo mën ko. ay di génne cinquante mille mu yóbbu ko dama yow laa seet si dama la dama la dénk sa bopp tey ma ne ko tey la àll bi nga war a bëri dimanche comme maa ko taxaw ñetti weer ba mu wóorul woon doo fi ñëw comme ma ko taxaw trois mois. teel a àllarba mercredi nga war a bëri dimanche mercredi jeudi vendredi samedi dimanche quatre jours ba mu wóolu loolu doo fi ñëw ma ne ko bés nii nga tafee tey mu naa ah, ma ne ko yàq si kër nga nga bokk ma ne ko mu ne ma daal ma ne ko bu soobee yàlla combat bi incha lépp lu ma si mën ñaan suñu borom si barke Seydina Amad te mu may dal dam si barke Seydina Amad mu dem yàlla may ko bu mu jógee combat bu mu bëree bu jotee avance ñëw na fii jox ma cinquante mille saa bu jotee combat ñëw na fii jox ma cinquante moom bon noonu lay def man ma ko sama doom nga sa papa laa ñu ne si Modou Lo nañu wax doomu maam Gorgui Ndiaye bu ñu ne maam Gorgui Ndiaye nañu wax papi Modou Lo Modou Lo sikk sama doom sikk mu Adama Ndiaye mii boo wax na sama ki topp si man lu bokk nekk bàyyi moom laa ko fi demal turandoom léegi li mu am suma degré bi Modou Lo degré boo ko am si kër gi ñun ñëpp moo ko may boppam la. loolu moo ko may boppam. loolu de leer na moom. su mu bëree ñaanal naa ko yàlla. Modou rek moo ñëw ci xale yi bëri di la seet si wala am na ñeneen ñuy ñëw. kenn du fi ñëw Modou Lo rek mu fi ñëw fi ñëw. même bëru faas yi sax kenn mosu fi du am combat ba ñëw fi. mbër yi nekk Fass. kenn du am combat sax ba ñëw fi. kenn Modou Lo nag sax bu jotee avance ñëw na fi. Fass yëpp wér xam ne loolu wér na Fass yëpp loolu nag nit ku nag dañ ne lu ma am moo ko may boppam waaw macha allah mi ngi noonu ma gu ne sa premier naaw la mooy sa doom sa doom mooy sa premier naaw la yaay moom moo yow moom tam am loolu am na loolu si kër yi moom moo te moo ko may boppam loolu mooy li xam ne noonu la demee. kon daal sa doomi bopp la. sa doomi moo ko nangul boppam la moo ko loolu moo ko utal boppam jox ma boppam loolu nag moo tax moo tam man tam ma def ko ni sama doom yi ba jur loolu mooy am sama digg ak moom combat bu mu am ñaanal naa ko yàlla ndax yàlla may ko ndax loolu yàlla def na sama diggante moom. tey soo amoon na message ba nga xamante ne bii yaa ngi koy yónnee xale yi nga xamante ne bii ñoo nekk ci làmb ji tey lan lay doon. message su xale yi mooy ku si nekk ki ngay bëreel da nga xam mëninam xam fi nga ko war a jaar xam fi nga ko war a moytoo loolu message yooyu laa leen di jox. ku nekk ki nga war a bëreel. da nga xam ki li mu mënee nga xam ko. xam li ngay war a bëreeg moom xam fi ko war a jaar xam fi ko war a moytoo loolu moom mooy li nga xam ne moom jox xale yi. ñu bàyyi la nga tàggatoo papa xam nañ ne euh, waxtaan bi neex na lool waaye macha allah kontaan nañu. alhamdulilah maa ngi leen di sant bu baax a baax nag. di leen ñaanal yàlla suñu borom bu baax ba tedd bi mu sàmm leen aar leen. yàlla yàlla sàmm yàlla leen yàlla defar ba ngeen defar rajo bi ngeen yoree yàlla ko yàlla boole sa rajo yi gën a réy si Sénégal bi yàlla ko yàlla def si barke Seydou Ahmad incha allahu taala rajo bi ni mu tudd Leewtoo TV wax nga ko léegi wax nga ko sax wax naa la ko de papa man li li tax nga neex ma dangaa dégg waaw léewtoo ci yooyu nga wax. waaw ma la wax léegi Modou Lo ku muy bëri day léewtoo moom. waaw buy léewtoo wax ko ne muy léewtoo na di léewtoo ñun ñun ñun ñun ñu ñëw tuddee suñu bopp léewtoo. waaw yéen ñëw ma toog yéen toogee ma ak yow ma léewaatoo ak yéen. suñu léewaatoo bi nga yaakaar nag ñun ak yow ku daan. ku daan ah. Ah, yow laa koy laaj. <laughs> est-ce que du match nul kon. ah kon nañ ko bàyyi match nul <laughs> tey mën na nekk wax nga ko sànq li nga match nul ñaata match nul nga amoon fàttali ma ko vingt euh, vingt six match nul ñaata victoire cent une victoire ñaata défaite vingt deux défaite boo boolee lépp muy ñaata cent quarante neuf combats cent quarante neuf combats waaw ci diggante ñaata at cinquante six quatre vingt trois loolu mooy sa carrière macha allah. carrière ngoog loolu sama jaar-jaar loolu yàlla ma ko defal. parce que damay sant yàlla bu baax a baax a baax am na loo ne moom. loolu sant yàlla foo toll rek. di ñaanal yàlla suñu borom bu ndax. moom mooy ñu gudd fan may ñu wér. may ñu kàttan may ñu mujj wér dañuy wax ne àdduna. jaar fi dem du mën a ñàkk waaye yàgg fa am na solo. weeru koor wi ñu ne. yàlla ñu yàlla ma ñu fekkee fan weeru weeru koor. yàlla nañu ko yàlla defal. ku ànd wér. ak kattan ak mujj rafet yàlla ñu ko yàlla defal ci xéer ni si boppam nag ñu koy jaamu fi ñu toll di ko sant fu ñu toll di jur seenaat fi ñu toll dafa am nag loo xam ne dama leen koy dénk nag ñun ñu bàyyi mooy lan su ngeen toogatee bu ñu ne maam góor gi njaay da ci teg soppay Seydina Muhammad loolu déggee maam góor gi njaay leneen ma ko defal mm-hmm. dama wér man si ñaar rek laa def sama jotaay ñaar rek dama wéeru si yàlla toog si wetu seen am loolu yàlla foofu laa toll léegi di ko sant bés bu jot saa yàlla tudd seen am bés bu yor loolu maa ngi fa loolu di sant yàlla bu baax nag yàlla na leen yàlla jàppale bu baax a baax a baax a baax yàlla sàmm leen aar leen musal leen si cat musal leen si bët baay musal leen si pexem doomu aadama te musal leen si seytaan yàlla ko yàlla jërëjëf jërëjëf kooku moo nekkoon suñu papa maam góor gi Ndiaye comme ni nga ko waxee léegi moom mooy soppe Seydina Mouhamed sangu sang yi borom barrière or ba ca Medinatul Munawwara bàyyi Faatumata bintu yaa Rasulullaay euh, yàlla nañu yàlla taas ci barkeem papa yow tamit euh, ñu am mbégte ak contentement trop sekkoon ak yow waxtaan di la ñaanal suñ borom guddal fan wi yàlla na suñu borom gën guddal fan wi wéral cër yi bàyyi la ci kanamu njaboot gi ba ca kanama kanama kanama kanam ndax ni ñu koy waxee rek yéen suñu ay sangeen suñu ay ndam ngeen suñu tiitar ngeen moo tax dañ leen di ñaanal rek suñu boroom yàggal leen fi lool ci barke Seydina Mouhamed sa xarit bi. alhamdulilah. jërëjëf. ñu gën yóbbu na ma màq dafa ñeenti yoon def naa ko màq. màq yàlla yóbbu na ma fa ñeenti yoon. kon fu war a gën a sant yàlla amul. te saa bu ma Madina bu ma fa demee. bés bu jot xabru Seydina ma daa fa dem juróomi yoon. su ma julee suba ah. ziar xabru foofa jumaa bi fa julee ah. ta tisbaar fa laa koy julee ziar xabru ah. takkusaan fa laa julee ziar xabru julli xabru doo dem tëdd ko bés bu jot xabru seen maat naa fa dem yàlla ñeent la wax dafa ne man yàlla Seydina Mamad sa ñaari waajur yàlla loolu la wax léegi sama diggante ak Seydina Mamad kenn xajus loo bëgg si mën ak jaaral sa waajur maa la jaaral si ñoom ñoom laa lay xoolee bu ñu bëggee mu bégg bu ñu meree ma loo bëgg si man jaaral sa waajur ba tax ñu ne àdduna kilo la ëpp chance ku ne mooy ki nekk nag waajuram bi dund kooku lépp a chance ndax waajur da nga si defal oh. sant yàlla ngoog bu baax a baax doole sant bu baax jërëjëf jërëjëf mi ngi noonu waxtaan bi macha allah neex na jàngee nañ ci ay euh, jàngale yi nga xamante ne bii macha allah yokkute lay doon ñun te yaakaar naa tamit yokkute lay doon ci suñu mbokk internet yi xamante ne bii ñoo ñu doon topp ci Leewtoo TV jaajëfal na sama équipe bi ma àndal Modou Mané Mansour Fall Benjamin des caméramans ak sama jigéen soxna Nafi mi nga xamante ne bii macha allah tey suñu suñu amee jotaay bi ak suñu papa ji gannaaw yàlla moom moo tax waa papa. am na loo xam ne. moom lay tëjee nag. ndax ku nekk dafa am fu la yàlla jaaral. Oh, dégg ngeen xanaa. mën a jamil mën a jamil Cheikh Seydi Asmal di say maamu jamil Cheikh Seydi Aboubacar Bayu jamil Serigne Mansour Sy rakku jamil Cheikh Ahmed Tidiane Sy di rakkooy Jamil Abdoul Aziz Junior rakkooy Jamil Papa Malick Sy di rakkooy Jamil Maam Góor gi Jamil xam nga Jamil Seydi Jamil maa nu moo rafet jikko maa xam Seydi Jamil maa gëm Seydi Jamil sama naw Seydi Jamil am jëmmi raw àdduna ak alaaxira loolu am naa ko moom moom foofu laa tëj jamil moom foofu mu dugal ko jërëjëf jërëjëf jërëjëf papa jërëjëf papa jërëjëf jaajëfal nañ leen bu baax a baax di leen dig daje incha allah bu ci yàlla àndee beneen yoon ak beneen invité jaajëf yéen ñi ñu doon topp ci Leewtoo TV macha allah jërëjëf tatifire kuni jamba yalana korkanjo farbande lew tatifire kuni jamba jangima korkanjo farbande lew tatifire kuni jamba nangima barka ju fa bambe